merci d'être là Mohamed Fall euh, yow it ñu ngi lay euh, gërëm euh, nga bokk ñoo ko bokk alors d'abord racontez-nous l'histoire nous quand on a vu notre fameux car rapide dans les rues de Paris ça nous a ébloui bah, Nous, normalement, on travaille pour newcobac.com. Mm -hmm. C'est qui permet aux Sénégalais de l'étranger de commander pour leur au Sénégal. Oh. Mhm. Oh. Et euh, oh. on cherchait, un moyen vraiment sympa d'aller rencontrer nos clients en France et l'étranger. Mhm. on s'est dit que voyager en car rapide, c'était le, meilleur moyen d'aller à leur rencontre, tout simplement. D'accord. Euh, comment ça s'est passé Nakala mbir mi demee euh, ba bi Paris salaamaaleykum bon tout d'abord maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi ñëpp. Uh-huh. di nuyu waa ñoo ko bokk tamit. Uh-huh. donc euh, comme ni ko Pécheur waxee. ñoo ko bokk site internet la. buy tax uh-huh. Sénégal yi nekk extérieur jënd jënd ravitaillement wala n'importe quel autre produit. pour leurs proches ñi nekk fii. donc l'idée c'était d'aller en France et de rencontrer cette diaspora. donc wax ji wax ji mooy nan ñu fay demee ñii ne on va faire. Euh, un euh, ceeb ñii ne on va faire euh, on va amener Youssou Ndour ñii ne on va amener Boubacar ñii ne on va amener Pape Cheikh. Mm -hmm. l'idée en fait était donc sur l'idée avait surgi comme ça. Mm. on y va en fait car man au début je n'y croyais pas pour être honnête mais le car dans un autre contexte sincèrement il est attractif dafay indi ay nit c'est marrant les gens rigolent maa ngi fàttaliku ba ñu ñëwee wàcc Barbès ci suñu émission e nit yi ba ñëwee dafa am paa boo xamee dafa ñëw daw ne ma mon fils mon fils mon fils lii lan la lii la donc c'est marrant parce que parce que car rapide euh, mooy particularité boo dee def carte postale euh, Sénégal wala Dakar car mooy mooy mooy particularité bi oui ça ce qu'on appelle les les les traits distinctifs entre les pays et ce qu'on appelle aussi euh, les marqueurs mm-hmm. les parce que chaque pays a une sorte de marqueur mm-hmm. par exemple quand on parle de la cuisine tout de suite on passe, on pense à la France. Mm -hmm. Quand on parle de la bouillabaisse, tout de suite on pense à Marseille. Donc ce qu'on appelle les, les, marqueurs. Le car rapide est passé d'un élément de transport en commun à un marqueur national. Donc aujourd'hui, où que tu sois, quand tu vois un, un, un car rapide, Sénégal, automatiquement... Ouais. les couleurs te Sénégal. Et je pense qu'en communication, il y a ce qu'on appelle le coup de génie et ça a été un coup de génie. Voilà, coup de génie kay quelle stratégie. Euh, euh, normalement, euh, dinañu seetaan ce qui s'est passé avec le cas rapide en France ci télévision Futur Média mais ci tënk rek racontez-nous un peu li téléspectateurs yi di xaar ak naka ngeen def ba yóbbu car rapide bi en France comment vous avez fait pour amener ce car rapide en France. Donc le car rapide en fait c'est une Renault Savième qui a été achetée en France. Fa nañu ko jënde parce que ah. sinon bu fekkoon dañoo jël kaar fii yóbbu ko foofu ak seen visite technique ña ñi ña ña les contrôles ña ña du fa mës a daw. day metti d' abord donc on s' est fait jamais arrêter. Mhm. donc dem nañu Angers dem nañu Le Havre wër nañu Paris kenn mësuñu arrêté. donc ah. parce que oto bi dañu ko jënd foofu mu am kayitam yëpp et tout. Ah ñu dem fii Médina photo fi Carapide jël recoin yëpp yónnee yónnee ko par email ñu jox ko benn artiste moom moo ko pendre foofu. et puis l'objectif, euh, euh, monsieur Pêcheur L'objectif, encore une fois, c'était vraiment de rencontrer euh, nos clients et de, faire découvrir le cas rapide aux Sénégalais qui sont en France et qui n'ont pas eu l'occasion de revenir au Sénégal depuis longtemps, voir ceux qui sont nés en France et qui sont jamais venus au Sénégal. Donc à chaque fois on avait des réactions absolument incroyables de leur part et c'était c'était juste incroyable. voilà donc nañu xool bande annonce bi euh, ak kan moo koy dawal waaw quand même. et qui est l'apprenti kese <laughs> dégg nga lii waa jàngi yéen man yéen laa bëgg quel recrutement. qui est le chauffeur et qui est l'apprenti dites-nous tout. <laughs> et qui le coxeur. non le le coxeur docteur. <laughs> oui c'est qui le chauffeur c'est qui l'apprenti c'est qui le c'est qui le coxeur <laughs> parce qu'on a des particularités avec nos cars rapides regardons euh, et puis juste après très rapidement ils vont nous dire comment faire euh, pour euh, découvrir ce qu'ils proposent euh, sur leur site internet. Alors plaisir, ça, ça rappelle qu'on est aujourd'hui. Mais il fait froid <laughs> yow daanu ma seetaan dessin animé. waaw waaw waa Tëngéej waa Yaakaar. Yamboo yi ko gën a cher lii de pare la. allo chérie. à très bientôt sur Télévision Futur Média donc euh, euh qu'est-ce que qu'est-ce vous dites aux téléspectateurs par rapport à ce qu'ils euh, attendent euh, euh, de ce projet donc tout d'abord donc projet la boo xamante ne c'est assez ah. marrant ah. parce que boo xoolee c'est la rencontre de différents mondes mhm. rappeur bi footballeur bi mhm. góorgóorlu bi le sénégalais lambda donc nan communauté bi nekkee France mhm.

Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez aux, aux, aux internautes bon, y a Aux gens il y, a, il y, a un peu de tout, mais notamment le, le principal, nos principaux produits, c'est les ravitaillements, donc les sacs de riz, les diecs boudiards, les, les huiles, euh, tout ce qui se consomme euh, fréquemment au Sénégal. Et on fait aussi électroménager, construction, mmh. BTP. Donc c'est vraiment

on y est arrivé. et donc léegi ñu ngeen ak bàyyi en fait nit yi ngeen. apprécié ngeen ñu wax ñu. Uh-huh. quels sont les retours. mu nekkoon sa première fois nga dem France. noo gisee France. bi de <laughs> nii rek ngay gis nii rek ngay gis. <laughs> te ñoom seen train du jaas. bu la nee dans cinq minutes day gaare moog seen bus a yam du jaas ak ñoo garaaw. tubaab du nit seen bis du jaas le bis arrive dans cinq minutes cinq minutes après bis bi taxaw sa kanam dëgg la de. <laughs> donc loolu moo marqué heureusement ba euh, Sénégal am na ñu gëm lu ñu moom am na ñu gëm euh, loo xamante ni dafa bokk ci ñun te amuñu euh, kersawu woon ko ñeneen parce que ñoom amuñu kersawu jaay seen lu baax n'est-ce pas merci bokk ci ni ngeen bokkee ci projet bi et que ñun ñoo ko bokk voilà merci d'être passé nous voir kontaan nañu lool euh, Guillaume Pécheur ak euh, Mohamed Fall euh, bokk ca ñoo ko bokk donc rendez-vous dès lundi à partir